parce que dañoo gis ñoo xam ni sii nee nañ parti lañ dañuy bëgg pour jot réew mi te nee nañ bu ñu jotee réew mi dafa bokk ci seen article jëlee fi jaamu keneen ku dul yàlla jaamu nit. Mm-hmm. lañ fiy bëgg a te loolu amul ci Sénégal ci li fi mag ñi indiwoon léegi nag. Sénégal jaamu nit amu fi. amu fi waaye nag am na ay nit ñoo xam ni. li li Touba nekkee Tiwaawan nekkee ko kawlax nekkee ko ñoom dañ ko tuddee jaamu nit danañ di xa duñ noonu jaamu nit lañ ko tuddee. ok kon ñoom bu ñu nee dañuy xeex jaamu nit ñoom ñëppay tiit fi ne Tivaouane war naa tiit Touba war naa tiit Kaolack war naa tiit li tax ñu war a tiit parce que ñoom dañoo jàpp ni ñi ngi wéetal yàlla jaamu wuñ kenn ku dul yàlla woote wuñ leen ñoom loolu lañ jàpp moo am Tivaouane moo am Touba moo am Ndiassane moo am mhm. Kaolack. Mhm. mais am na ay nit ñoo xam ni si comme ñooñu feeñ ci Tamba ñooñu jàpp nañ ñun li ñu nekk. loolu jaamu nit la looloo tax kon bu ñu déggee kenn ku ni ñun kat bu ñu toogee dañ fiy jëlee jaamu keneen ku dul yàlla tiit day jot sa ñu war a tiit hmm. parce que jaamu ku dul yàlla moom neen la hmm. doo ci amee dara jaamu sa moroomu nit pertement la hmm. mais rek la fi sëñ Touba indi woon si xayma mag ñi indi woon ko fi jaamu yàlla kese la bu sell. ah mais kaddu yooyu jóge ci koo xam ne parti bi di Pastef la bokk. Mhm. te Pastef yàgg nañ leen euh, féetale boor boobu bu fekkee ne seen kilifa gi nga xam ne mhm. lu mu ci mën euh, ndax loolu yëpp moo tax la ñuy xam ne li ñu mujj trouvé. Mhm. ñun dañuy trouvé ni Ousmane Sonko moom dafa woote parti boo si pour jàpp ni moom mën naa yor réew mi. ak plan yi nga moom la teg. mais yàlla def jox ko nit ñëpp ànd ak moom bu boo àndeek nit ñu bari nag am na ñu ko wuy si ñoo xam ni am na ñu ko wuy si ñoo xam ni wuy wuñ ko ci li mu woote. Hmm. parce que euh, waa ji doon wax keroog li mu wax bu doon Ousmane Sonko du ko wax. te li mu wax ni moo nekk ci article cinq article cinq mi ngi nii ma indaale. bu Pastef bu Pastef loolu amu ci loolu amul ci article cinq. donc ñu mel noonu dañuy yàqal Ousmane Sonko nga bëgg a wax dañuy yàq Ousmane Sonko. parce que article cinq tey jii. Mhm. bu ñu amoon temps dañ koy lire. oui article cinq mi nii. Mhm. loolu amu ci. waxuñ ci benn yoon loolu. waxuñ ci benn yoon loolu. te li gën a yéeme ñi bokk moom parti weddiwuñ ko parce que bu doon fekkonte ni ñi bokk ak moom parti dañ ni ah ngañ dembare li mu wax amul ci parti bi. amul mhm. ci article bi bu boobaa kon tiit kenn du tiit. seen ñàkk wax gi dafa mel ne dañuy cautionner un peu. non au contraire wax. waxuma ñàkk wax sax dañu ni ngañ dañoo nii ngañ demba li mu wax dëgg la. xam nga buñ nee li wax dëgg la kon ko koy niñ ciy dégg ci tiital ñu ci mooy kon lii moo lii ngañ dem ba wax moo nekk ci ñoom. Ah, mais bu fekkee ne nag euh, ñooñu ngay wax leen tax a jóg tey jii nii mooy xeex suñu kilifa diine yi suñu këru diine yi. Mm-hmm. la ma war a nekk seen taxawaay yéen ñi nga xam ne yéen ay yooyu confrères yi. loolu nag moo ñu tax a jóg maanaam ñëpp man mii dama bokkoon ci ñi nga xam ne si dañoo noppi. Mm-hmm. parce que bëgguñu di wax ñi naan da ngay mais nag. Euh, dañu dañoo dem ba gis ni politique bu ñu islamisé moo am léegi ci réew mi politique boo xam ne dañu ko islamisé. Mhm. moom la ñuy bëgg parce que yi ñu fi wax yépp melokaanu ñee ñoo ñee nga xam ne si dañuy attaqué jullit ñi ca ba pare jàpp ñi ay yéeféer lañuy lañuy attaqué mhm. xam nga tey jii kenn wartu jàmm kenn ku dul yàlla loolu mooy la alquran bind mhm. moom la fi yonent bi indi woon saxaaba yi sallallahu alayhi wa sallam eh, eh, moom la fi mag ñi suñu mag ñi baax ñi indi woon mais nag bu ñu gisee koo xam ne si dafa ni eh, ñun dañu fi jële jaamu keneen ku dul yàlla te ñun gisuñu kuy jaamu keneen ku dul yàlla gisuñu ko mhm. te am ñoo xam ne si dañ ñun li ñuy jaamu leneen la lu dul yàlla kon bu boobaa looloo tax ñuy tiit looloo tax ñuy tiit parce que li mu wax ni mu ngi ci article cinq article cinq ngi nii amu ci mhm. te ñi nga xam si ñooy ay farandoom niwuñu ngañ demba li mu wax amul ci article xanaa dañ niw li mu wax dëgg la mhm. gën a wax lu gën a piir li nga xam moom na ngañ demba wax mhm. te man gëm naa ni usmaan Sonko bu doon wax du waxee noonu du waxee léegi nag li ma li ma trouvé man oui mooy Ousmane Sonko dafa woote maanaam ñi ko wuy si dañ koo jiitu maanaam Ousmane Sonko dafa woote. moom il marche prudemment mais ñi nga xam ne ñoo làqu làqu ci projet bi. dañ ko dañoo fësal seen seen seen seen melokaan dëggantaan. ok benn benn ci tuumaaluma ko. Mhm. bu fekkee am na ñu ko tuumaal. Ousmane Sonko dafa bokk ci ñooñu te man jàpp ma ni ci la bokk waaye bu fekkee def cee bokk moom nëbb na mais ñi mu àndal mënuñoo nëbb. léegi kon Ousmane Sonko la moo nekk responsabilité am dafa war a yëkkati ay kàddoom. leeral dafa yëkkati leeralul rek nag. dañ naan ci la bokk. dañ naan ci la bokk dama koy seetal. ba mhm. ba muy leeral wala mu. jusqu'à preuve du contraire comme on dit. waaw parce que nag moom ay taalibeem ay ca jaamu ku dul yàlla. jaamu ku dul yàlla moom lañ koy def. mais ñi li xew ci yeneen dëkk yi comme li xewoon Mali. Euh, mm-hmm. ñi duggoon ci yenn cité religieuse yi yàq mosque yeeg yu ni mel ndax jàpp nañ ne fa jaamu yàlla baaxul. loolu Sénégal. Euh, war na menacé na Sénégal. menacé na Sénégal moo tax moo tax may wax toujours ni. ministère de l'intérieur dañ ko dañ maanaam dafa war a ba ak euh, autorité bi yëpp sax. Mhm. dañoo war a bàyyi xel xoolaat suñu frontières yi bàyyiwaat ci xel bu baax a baax parce que lii kii wax ni moo nekk ci article cinq te nekkul ci article cinq. Mhm. ñi ànd ak moom au lieu que ñu ni lii ngañ demba wax nekkul ci article cinq uh-huh. xanaa dañu ni ngañ dembal li mu wax wax na dëgg te ki leen jiite génnagul wax ni lii ngañ demba wax nekkul ci article cinq kon mhm. lan la ñuy gëm dañuy jàpp ni li ngañ demba wax moo nekk ci